jaa ngeen jëf euh, yéen euh, téléspectateurs yi jaa ngeen jëf yéen internautes yi heure bu baax bi comme ni ko léegi benn internaute euh, commenté ci page Facebook bu télévision Futur Média en ce moment mën ngeen ñëw suivre foofu. ci li xew ci biir internet bi wala li ci internet bi waxtu wi jot na altine ba alxames ci bi à partir de 13 h ñu ñëw yaatal man ak Merry Beye Diouf Merry maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar euh, Mamadou di la nuyu di nuyu aussi suñu téléspectateurs yi nga xamante ne euh, depuis bi émission bi commencé ba léegi. Mhm. à partir de 13 h dañuy daal di toog li nga xamante ne moo di seen euh, kanamu télé wala sax dugg ci li nga xamante moo di quoi page yu TFM bi di ko daal di seetaan en direct donc ñu leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay mhm. et que vous avez passé un excellent week-end et une bonne fête de tam de Tamxarit. Ah, yaa ngi ci réseaux sociaux yi kay gis mais dinañ ñëw ci loolu. Mhm. ni réseaux sociaux yi neexee woon tàmm nañ di ko def comme ni ñu koy defee altine bu jot dañuy ñëwaat ci li jot a xew comme que ñun dañu ñëw vendredi samedi ak dimanche dañuy ñëw résumer leen un li gën a fës ci réseaux sociaux yi surtout wala li xew ci internet bi d'habitude lundi yi moom dañuy ñëw mu nekk lundi bu relax ambiance la dañuy boole utile ak agréable baaxoon nañ di ko def ci li xew ci biir internet bi tey loo bëgg mën naa la wax. tey daal tey tey je veux des cœurs. tu veux des cœurs je veux des cœurs. dama envoyé réalisateur bi ci téléphone bi ma wax jox ñu image bi ñu xaar. donne-nous des cœurs El Malick. super. des cœurs pour Ndella Madior Diouf alors ah mi ngi noonu comme que tu veux des cœurs. waaw mi ngi noonu moom moo xewoon ci réseaux sociaux yi donc un petit clin d'œil à notre maman Ndella Madior nga xamante ne moom moo lancé mouvement boobu di euh, je veux des cœurs donc. Euh, paix amour surtout ah yow tamit. nous voulons challenge la léegi challenge la nous voulons des cœurs. tu hmm. vois donc euh, on lui fait un petit coucou et c'est appel la rek pour appel à l'amour la à la paix. Hmm. donc xam nga cœur moom fu mu dugg rek affaire lu sedd la daal. est-ce que duñ ko wax. Euh, internet yi hashtag bi sunu net ñu envoyé ñu ay kër yu bari ci période bi ay ca nag euh, internet premier numéro semaine bi internet yi avec euh, tey jii nga xamante ne mooy lundi moom la ñu li nga xamante ne mooy seen émission préférée wan lañ ñu seen mbëggeel donnez-nous des cœurs montrez-nous votre amour noonu la maa ngi xaar <laughs> <laughs> ñu xool bu ci gën a nice wala kër yi gën a bari dañ koy capture léegi envoyé ko waa régie ñu tegal leen ko dañuy njëkkee ak tamxarit bi baalu nañ leen àq baal nañ leen àq vraiment ñu ngi ci onzième jour bi ci euh, mois musulman euh, première année ci année musulman pardon mu nekk euh, année bu neex di ko ñaanal téléspectateurs yi di ko ñaanal suñu mbokk internet yi mais aussi tamxarit bi xam ne bu ñu waxee tamxarit cere la. waaw sa cere nu mu mel. ah sama cere neex la def. Hmm. waaw. ah challenge bi bokkoon nga ci yii comme lii moom mairie du la non lii moom ah loo tax ba defuma li non defoo lii. du mu challenge gis naa ci gis naa la damay bomb wan naa ko Youssou sama bomb cere wan naa ko dama la ko woon. mais gisoon moom daal dina jax ci cere gi ndax cere gi am na challenge cere gi indi nañ benn vidéo boo xamante ne mi ngi tourné. Mhm. ndax nañ ne woon avant bàyyi leen di bombee yenn cere yi. Mhm. Euh, ñu daal di gis benn vidéo boo xamante ne mi ngi tourné depuis. Euh, euh, depuis depuis ci tamxarit bi samedi bi. waaw mais disponible na sax nañ ko proposé. ay ca kon ñu seetaan ko kon. def fromage donc soxlawul may utiliser beaucoup de gras je mets le fromage je mélange le tout avant muy sedd. gis nga Merry man li ma bëgg a wax yëpp xale yu jigéen yéen ñii. jaay tubaab tubaab lu fromage cere yi. xam nga togg dafa bari façon man jëluma yi cere défense kenn mais togg dafa bëri façon man de ah euh, xaw ma woon fromage ci cere hmm. mais ah xëy na am na ñoo xamante ne dañ koy dañ koy bombe cere xam naa ne daal dañ koy bombe cere euh, petit pois am na ñu ko ci def tàndarma am na ñu koy def dama dama la koy yekkal ba moom gis na ko ba pare hmm. waaw Youssou si laa bi ci gannaaw gis na ko ba pare jotuma sama yekk tam xarit ko <laughs> mais cere yi vidéo yi gis naa ñëpp di ko partagé mais vraiment c'est c'est c'est c'est trop quand même voilà. waaw bon am nañu commentaire la ñu bëri nag ñu ngi koy partagé si groupe de famille euh, ñu si bëri même ci statut parce que comme ni ñu ko waxee euh, ci euh, vidéo bi ñu ngi laajte lu tax ñu def si fromage. Mm-hmm. ci ci cere ndax fromage ànd nag cere ñuy fàttali rek ne docteur yi defoon nañ fi benn mise en garde ne nañ def nànk ndax ak coronavirus bi taluñu ay fër taluñu yeneen problème na hôpitaux yooyu dafa fees voilà yi si booleeku mais ci kaw vidéo yooyu nga xamante ne sax dañ doon jàll mm-hmm. benn challenge. Mhm. boo xamante ne nii dafa daal di xew ci li nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi. Mhm. moo di challenge cere. waaw gisoon naa ne ku nekk di ci wane sa bopp mhm. déjà. mooy tooñ yi nga xam ne dañu ko doon def ci statut yi par exemple ñu naan law yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi cuuraay cere yi cuuraay cere gi ñee ñooyu ñi ngi sotti or cere yi loolu dañ bi bëggoon euh, euh, jabar jabar ji euh, kii ke moo ñee cere bi ak café Touba ba nag mi ngi noonu mais challenge bi waaw challenge bi comme ni ñu koy gisee nii en fait da ngay daal di jël benn turu film nga daal di remplacer moo cere bi mm-hmm. donc autant en emporte le cere mooy autant en emporte le vent mm-hmm. James cere James Bond ah, donc voilà le bon la brute le cere cere donc euh, euh, do the right cere donc super cere euh, the walking cere donc da ngay jël turu film rek nga daal di remplacer ak moo cere bi donc day wane daal. donc day wane ni voilà ñu cere de papel. challenge bu ne xewoon na ci weekend bi ci tamxarit bi gis nañ ni nañ ko ci jàmm ak salaam. parce que mhm. vraiment ambiance bi ni mu meloon ci réseaux sociaux yi. Mhm. moo taxoon ñu ñëw dañ leen koy baaxoo di defee lundi bi dañuy ñëw résumé un peu li xewoon ci weekend bi internet yi envoyé nañu ko fële ca mhm. Kaffrine inondation yi foofu image yëpp gis nañ ko hashtag bi ngeen utiliser mooy sunu net mooy bu baax bi gis nañ ko te gis nañ aussi euh, réaction yi am yëpp ci cere mhm. euh, xam nga euh, cee tamxarit dañ daan faral di def taajaboon mhm. xam nga léegi taajaboon daanaka amatu waaye am na li nga xamante ne moom di tong tong waaw tong tong tamit moom kii bi moom na ak c'est-à-dire nak yi lañ ko doon jël ci koñ yi doon cotiser. exactement jël benn nag doon ko rey. pour ñëpp ko xam nga yooyu yëpp dafay raar. Mhm. mais tey gis nañ euh, benn euh, quartier boo xamante ne moo ko daal di def li nga xamante ne moo di tonton mu di Thiaroye sur Mer ñu daal di ñu taggee avec le hashtag euh, sunu net ñu daal di leen baax ngeen seetaan li nga xamante ne moo di vidéo boobu. Thiaroye sur Mer. lii waa Thiaroye sur la. waa Thiaroye sur Mer la tong tong jot naa am fële nga xamante ne moo di Thiaroye sur mais xam nga nga cere cere cere bon xam naa doo ko mën sax te ñoom ay cere baase ak. ñu daan utiliser feuille kii bi nu mu tudd. bëri feuille ban. mu xamatul feuille bi feuille ban. mais expérience bu garaaw bàyyi ma proposé la lii lii maire yi daan def. xoolal waaw ah, wan ma lii maire yi daan def ma xool. lii xam naa ne xamoo ko woon. acca wan ñu. كمان الملوخية كتير سهلة وريحة للستات يلا ريحوا حالكم يا ستات بلشوا تعلموها ادعوا لي كل واحدة بتقطف تتريح تدعي لي فيها العافية يعطيكم العافية حطيت الزعتر على طريق المصاية سهلة ومريحة ممكن تستعملوها كمان للملوخية كتير سهلة مريحة للست Non, en fait, ñu bëri xamuñu ne paxu passoire bi c'est pour ça en fait. paxu passoire bi ok loolu mooy wane ni yow xamoo lii. mairie lii mairie ñoo ko daan xam. ñii witti bisaab yi yi xam naa ko man tam naa fekke naa mairie ba tay di ko def dinañ da ngeen daan def nii rek déedéet ñun au début dañu doon ah, ah, koy dugal nii xëcc stratégie bi moom mairie yi ah mais yàlla guddal seen fan daal yii stratégie yi xale ko ay machine la ñuy <laughs> la ñuy def wala ñu jël seen loxo c'est mairie dafa xam lii kan mooy wax la xam naa El Malick mooy wax foofu équipe bi nekk ci ginnaaw ñoom ñëpp nee nañ lii xamoo ko woon bàyyi leen tooñ. baax na dinaa leen invité yéen ñëpp kër ga ngeen gis. en tout cas gis ngeen ni dañ koy dañ ko doon proposé euh, yi ñoo ñu ko proposé doon ko demandé ba tey ndax lii xam naa ni génération bu bees bi xamutuñ ko. xamuñu ko xëy na génération 80 84 yi 83 yi dina am ñu ko si xam. Hmm. mais 2000 bi moom je mais parlant am na beneen challenge bu xew xam na li ci internet bi li ci ëpp ci réseaux sociaux yi la ñuy wax. Hmm. xam na bu ñu nee internet jamono jii moom. Hmm. réseaux sociaux mooy ci weekend bi tamit am na beneen challenge boo gis mooy may gis ay ñoom mairie yi ñu defaraat noonu imaginer ñoom mairie yi 800 nangam en fait ay ñu mhm. a <laughs> mhm. euh, def amalgame en fait du histoire mais mhm. jeu la boo xamante ne bi la gën a yàgg moom ngay daal di jël. Mhm. Euh, daal di ci def lu mu lay inspiré daal di ko bind donc par exemple kii dafa ne voilà c'est la première femme sénégalaise. Mhm. qui a inventé cette phrase tous les hommes sont pareils moom 1634 euh, ba ñu génnee àdduna ci atum ah. mësul nobaate. Mhm. tu vois donc. mais euh, xoolal voici mbéri laa la mbéri la mais benn la rek. prononciation bi yow ñu bari nañu lay woowee. Ah, ah. non bokkul nag moom laay bañ. tudd ma mbéri mbéri laa tudd. muy clair. mais man day mbiri mbiri laa lay woowee sax. man bu ma woowee mbiri de mbiri dafa am mbiri am mbiri ndax mbëri waalo waalo yi ñooy woowee dafa am turu waalo waalo mbiri. Hmm. am mbiri bokkut. tey histoire laa lay defal cours d'histoire. ah baax na naa woowee monsieur Diouf mu lay woowee mbiri wala mairie. non moom monsieur Diouf du ma woowee benn si boobu. maa ngi seet ku léegi mais lii challenge bu xew la gis naa ñëpp mais am na sax ñu xaw a critiqué quoi. am na ñuy critiqué yi ngeen di génnee. pour ngeen au lieu ngeen jàngale ci histoire wala dara. mais xam nga toujours moom ñëpp duñ d' accord. il faut mhm. toujours am ñi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy critiqué mais ñiy critiqué tamit jar nañ bàyyi xel xoolal kii li wax ñu ne mooy ñi laan saar ki moo njëkk a jël dugub def ko ci gën mhm. pour defar cere en 1807. respect kon Djilaar Sarr mi war nañ ko ñaanal. waaw Djilaar Sarr war nañ ko ñaana mais toujours rek di di wax euh, Mamadou que ne lii nii c'est juste pour du fun am na ñuy critiquer ñu naan que ne. Hmm. Euh, déjà que ñoom euh, déjà qu'on a. pas assez de connaissances en histoire. Mhm. est-ce que lii du daal di jaxase li nga xamante ne moo di xelu xale yi moo taxoon ñu ne euh, il est bon aujourd'hui ñu indi leen ko ci seen émission bi pour ngeen mën a xam ne que ne lii du lu dëgg en fait c'est juste euh, ay euh, ay challenge la ay tooñ la mhm. ay photomontage la nga xamante ne dañuy jël photo yi nu mu gën a ancien wee rek mhm. ñu daal di bind li nga xamante ne moom la lay inspiré mais par contre ci réseaux sociaux yi comme réseau social bi di Twitter am na ay compte yoo xam ne ay historien lañu am yoo xamante ni toujours dañuy rappeler ci benn date wala dara ñu mettre ñu en rapport wala ñu ñuy rappeler toujours ci côté histoire. mais ci mhm. surtout mhm. comme ñu ci bari dañu mel man lii retuñu livre yi. <laughs> ñu bari histoire politique gu Sénégal par exemple ñuy euh, xool anecdote yi joxe yenn dates yeeg euh, chiffres yi. pour mhm. pourquoi histoire bi di ko contextualiser toujours c'est important. c'est important parce que sur Twitter. di nga daal di trouver yooyu lay compte d'ailleurs sànq sax euh, bala ñoo yéeg maa ngi gis benn euh, photo euh, Cheikh Anta Diop. Mhm. bi mu gënee nekk jeune bu mu nekkee France ñoom tamit ñu koy ñu koy rappeler. non dinañ ci ñëw c'est des c'est des. ay affaire la yoo xamante ne c'est important aussi à savoir parce que si histoire la bokk. Mhm. mais à dissocier de lii nga xamante ne nii. Euh, c'est pour le fun ay tooñ la ay photomontage la c'est un jeu daal jeu la daal foo la du c'est pas quelque chose à prendre au sérieux donc lii dinañ ci bu histoire bi nañ ci ñëw. Mhm. dinañ ci ñëw gën ci gën ko yaatal parce que dina intéresser euh, internautes yi dina intéresser aussi téléspectateurs yu télévision Futurs Médias bari nañ ay depuis bi nga demandé kër yi nag moom kër yaa ngi lëmbe ci. Ah, télévision Futurs Médias plein de cœurs sur vous on hashtag bi sunu net la gis nañ euh, importance bi ngeen jox émission bi heure bi nee nañ heure bu baax bi la mooy heure bu détente toog di waajal añ di xoolee li xew ci réseaux sociaux yi mais tamit toujours réseaux sociaux lii tamit daf ci am monde aujourd'hui nii la mel de. waaw en fait euh, day wane que ne yenn saay euh, da ngay soxla en fait ndimbal. Uh-huh. Euh, yaa ngi ci benn situation mais nit ñi ils sont tellement obnubilés par la recherche effrénée de l'information. maanaam maa njëkk am information bi. voilà maa ngi koy dugal Facebook. voilà au lieu ñu dimbali ko ñoom ñu ngi daal di filmer kii ne Dieu merci je vais mettre ça aujourd'hui sur Facebook ma xamante ne moo ni ndimbal donc ñu daal di def attention rek. mais euh, lii ci journalisme citoyen est-ce que lii recherche inter euh, recherche ci def benn dossier parce que lii feebar la non c'est les nouvelles de cette ère maanaam ère digitale bi dafa créer ay maladies yu bees. dëgg la. parce que sama genre yi nga xam dañu bëgg photo toujours di photo wane seen bopp. Mhm. dugal statut dugal Facebook dugal kii est-ce que lépp ça va damay laajte ah. non lépp ça il faut euh, euh, nice lépp nice Ndiaye <laughs> waaw. lépp nice ba da nga gisaale sa bopp. dama ne lépp nice cest à il faut faire la différence entre. Mhm. boo nekkee en situation de euh, dimbali nit ki nga teg sa téléphone dimbal nit ki. Mhm. mais bu dee loo xamante ne nii sa yëfu bopp la. no rush voilà mun nga amul problème kon photo leen dugal photo leen envoyé ñu hashtag bi sunu net la seen photo léegi ñu dugal sax yenn internautes yi ñi nga xam ne ñoo gën a actif mhm. ñu leen dugal ci def jàllale nag seen photo ci émission bi am na solo leneen li bonne action toujours wax nañ ko dañuy boole utile ak agréable ci réseaux sociaux yi dafa am ñu nga xamante toujours yu reetaanlu yu neex ay images yu am solo yoo xam dañ koy partagé mhm. am na ñeneen ñi nga xamante dara ñoru leen ci réseaux sociaux yi surtout Twitter gis naa ci benn action bi nga xamante am na ay ndaw yu ko créer maanaam dajaloo dem ci école yi di euh, dimbali école yi di leen gën a defaraat te toujours seen moyen bopp la xaar ñu gouvernement xaar ñu dara. loolu baax lool la ñu tuddee bonne action citoyenne donc ñu koy gis à travers les images gis ngeen ne école bi par exemple toit bi dafa daal di euh, teppatiku daal di dem euh, lii moom bu ko fi taw fekkee mara day taale donc ñoom ñu daal di def seen collecte boobu actuellement ils sont à 1 gars il voilà. est très actif. voilà muy euh, junior Diakhaté Nitch. voilà junior Diakhaté Nitch. Mhm. donc euh, ñu koy jaajafal bu baax ndax li mu def nii lu rafet la donc dafa daal di ubbi benn euh, benn compte bi nga xamante ne nii képp euh, ku bëgg a jàpp ci li nga xamante ne moo di réflexion école bi. Mhm. mën nga ko daal di yónnee par Orange Money wala par Wave daal di joxe li nga xamante ne moo di numéro de téléphone yi te gis naa aussi que ne ki nga xamante ne moo di action bi. Mhm. gis naa sax benn télévision étrangère bu nga xamante ne mi ngi ñëw di voilà ñu ngi ñëw di filmer donc pour dire que action bii nga xamante moo ko mu ngi ko lancé c'est une bonne action à telle enseigne que ñu bëri ñu ngi koy daal di reprendre non seulement sur réseaux sociaux yi mais aussi si télévision africaine ak internationale. di ko jaajëfal moom junior euh, nit ci surtout li muy def euh, mobilisation bi bëri na nag ci Twitter ñëpp ci mhm. dugal seen xaalis. te mhm. ñëpp ñu ci bëri ci xamante ci réseaux sociaux yi la xamante mat ay 1 million et quelque ñu collecté ko daal di defaraat te du yem ci benn koñ rek zone rek mën na jóge Cambérène dem beneen zone dem beneen zone dem beneen zone dimbali école yi jàppale leen loolu nekk lu am solo d'ailleurs créé nañ sala challenge bu am solo boo xam ne je pense mën nañ la ko proposer ay ñu seetaan challenge vidéo bi vidéo bi voilà kon euh, xam naa vidéo bi pareegul mais je pense euh, benn challenge la challenge util pour offrir un message d'intérêt général maanaam benn inter euh, challenge boo xam ne vidéo bu am solo. Mhm. bu ñoom ñuy créer comme leen ni ngeen di def ci seen sañse yi nii. waa régie yi ñu ngi ci ñu ngi ci ginnaaw avant après. Mhm. dañuy dem ci benn zone bu bari mbalit. Mhm. nga ñëw taxaw sànni bale bi. après koñ bi war a set. koñ bi war a set. ñu solwaat ba jekk ñëw taxaw. ah loolu moom baax na bu vidéo bi bu vidéo bi pare woon euh, je pense ak waa régie nañ ci ñëwaat dina nekk la lu am solo li nga xamante ni je pense bu ñu ko proposé euh, téléspectateurs yi dina nekk beneen challenge boo xamante ni euh, dina am solo wax nañ ko utile ak agréable la bonne action yi partagé leen seen ay photos seen koñ seen région seen zone seen quartier. ñu partagé loo ko ak yéen ci eh, li xew ci internet bi wala li ci internet bi leneen li Covid tamit il faut ñu jóg du ñu jóg ci sensibiliser donte seetlu nañu aussi semaine bi ça va ñu wàññeeku. waaw bi mi ngi wàññeeku mais euh, nañu daal di continuer rek euh, suñu ñaax bi parce que mën nañ jàpp ne que xëy na ñaax bi ñu si ñaax tamit am na si euh, effet. Mhm. bi nga xamante ne nit ñi ñu ngi daal di continuer di takk seeni i masque di mhm. respecter li nga xamante ne moo di distanciation sociale ak di raxas seen loxo mais ci kaw Covid bi nag dafa am benn photo boo xamante ne benn image bu ma technicité de la régie suñu ko mënee tegal. Mhm. Euh, dañuy won évolution en fait euh, nit. Mhm. Euh, ak avec le port du masque gis nga 2019 ki nga gis nii les oreilles étaient bien collées. 2020 mhm. masque yi léegi xoolal 2021. suñu nopp yëpp ay jóg taxaw nopp yi décollé na xam naa ne moom vague 2021 deux jam 2022 moom chirurgien yi dinañ am euh, beaucoup à faire wala nopp yëpp nii la ñuy tourné <laughs> ndax takku masque am na solo image bi am na solo continuer leen di takk mask yi ñu gën a góorgóorlu yëf yi jeex benn yoon mhm. ñu delluwaat ku ci nekk delluwaat ci say activité nekk na lu am solo leneen li duñ ci jóg li nga xamante ni mooy def charme émission bi mooy kii kan la wala bu yàlla nee waaw semaine dernière nag maanaam jeudi bii ñu génn mhm. ñu leen proposé woon kii west bi yaatu na lool. waaw kilifa la nag yaay couture la woon. Hmm. Mhm. kilifa la de. waaw kilifa la moom en tout cas ñu ngi ko ràññee fii ci groupe. GFM mais ñi ko bari nañu. waaw ñi que changé wul bi benn la de. kanam bi benn la ah. waaw. kanamu booy Pikine la quoi. mi ngi nii Babacar Fall bu RFM. waaw journaliste nekk fii ci groupe Futur euh, Média Babacar ñu ne kanam gi changé wul effectivement moo tax ñi ko trouvé bari nañu. Mhm. léegi nag ñun ñoo leen ko promettre woon euh, internet yi il ñu commencer. ñuy def ay questions yu xaw a saf. Mhm. ñu am pas kuy gagné mais ku ñu ñuy neexal quoi ñuy trouver joxe réponse bu baax. deux ou trois personnes dinañ commencé léegi nag yii je pense que dafa yomb. mais dinañ am léegi ay images yu jafe yoo xam ni comme bii ñu leen di proposé Babacar Fall mën na dem ñëpp trouvé nañ ko ñëpp xàmme nañ ko wala leen ni tey ki ñuy proposé non non non non balaa ñoo ñëw fi waaw kay. <laughs> kii mu xale bi ku muy ndural trop trop trop pour xaw a jox ko ay indice mais. am na ku muy nduru de waaye. daal xaaral ma xoolul ba xam na dina am. Hmm? <laughs> ngi xaar ma xool commentaire yi lu yi wax est-ce euh, na ñoo xamante ni moom lii la ñuy xaar. waaw ñoom ñoom ñoom dañ ci saasi. kanam yi mais est-ce que trouvé nag. bañ ma xool am na ko commencé déjà joxe. maa ngi xaar. Mhm. Euh, maa ngi xaar yeneen yi ba xam ndax daal gis nga gis naa ay Youssou Ndour. ay Karam Boy waaw duroon naa de. gis naa ku ne. est-ce que du am na ñu teel a trouvé ñoom. ñu teel a joxe réponse bu baax bi en tout cas suba nañ leen jox résultat wu bu yàlla nee waaw xam naa ne boo leen gisee image démbam bii ak bu tay bi nga xam ne yàlla nee na waaw bu subaa bu tay ngay indi de waaw waa d'accord mooy image yu démb mooy photo bi xam ne démb la waaw photo démb la mais maanaam bu tay à l'instant demain lay nekk daal maanaam suba photo bu bees nga koy jël da nga koy jël photo image bu bees nga gis kon nit ki nu mu changé ci at yi am nga mhm. changé nekk jantal pas yaa ngi joxe indice de. jantal paa jantal paa yi bari nañu. yaa loolu mooy seen euh, kii kan la wala bu yàlla nee waaw image boobu la ñu ngi leen di ñu ngi xaar seen réponse ci réseaux sociaux yi ci page Facebook Twitter wala Instagram bu TFM wala bu groupe Futurs Médias wala hashtag bi sunu net ñu ànd ceeg li xew ci biir internet bi man ak Merry Beye Diouf leneen li mooy lii lan la li ngeen njëkk a wane image bi lii xale yi xamuñu ko. waaw lii xale yi xamuñu ko lii xam nga ko yow. ah waaw. yow timit nag yow doo ma teg. internet yee ñu ko proposé. <laughs> lii moom fekkee naa ko loolu moom gàtt gàtt gàtt lii fekkee naa ko. <laughs> donc internet yi ñu ngi leen di déglu ngeen daal di ñu wax lii lu mu doon. Mhm. Euh, defe naa ne xëy na génération 2000 du du bëri ñu koy am. du mhm. du bëri ñu koy xam mais plutôt euh, génération 1980 jëm kaw. Mhm. Euh, ba sax normalement. 2000 yi de xamuñu ko waaw ba normalement war ngeen kaa mën a xam boo leen amee job tuuti war ngeen kaa mën a xam. baax na mu ngi noonu wax leen ñu image boobu ñu leen proposé lan la ñu ngi koy xaar fii ci réseau sociaux yi fii ak suba ñu jox leen réponse bu baax bi suba moom dañuy jël réponse bu baax bi ñu partagé ko comme ni ñu koy defee. waaw bien sûr de la personne qui a écrit la mhm. ñu jógee ci lii nag Mamadou dama bëggoon ñu ñëw ci euh, image du jour bi. Mhm. benn image bu ma marqué la ndax euh, gis nga kii dafa daal di ne euh, dinaa def lépp lu mu jar pour daal réussir jaaykatu nen la donc pour vous dire que il n'y a pas de sot métier. Mhm. lépp lu ngeen dugg na fekk ngeen am ci seen motivation seen volonté bopp su ko defee ngeen jëmal seen entre seen activité boobu ci kanam. waaw ñu koy ñu koy encouragé di encouragé ñëpp. Mhm. képp ci la nga nekk bu ko xeet mhm. ñafe ci def ci fulla ak fayda. Mhm. ngay ndaw di ko xamante ni eh, réew mi yaakaar na la bu neex bu jafee tey dina neex suba loolu il faut ñu am courage di ko wax nañuy góorgóorlu di liggéey. ñafe mu nekk lu lew loo nga xamante ni gis nañ ni eh, ndaw yi ci internet bi tamit ñi ngi ciy góorgóorlu bu baax te dañu leen di gën di encourager Sénégal ñoo ko moom ñun ndaw ñi ñoo ciy gën a jariñoo ci at yi ñu jëm donc nañ ci ñafe ñu gëm nekk na am solo image bu am solo nga indi dina gën a booster internet yi gën a booster ndaw ñi ci période yi. Mm-hmm. donc bu ñu jógee ci loolu ñu daal euh, dem ci li nga xamante ne mu di vidéo du jour. Mm-hmm. vidéo du jour bi nag daf ma marqué parce que xam nga euh, suñu euh, policiers yi. Mm-hmm. ak gendarme yi dañuy faral di policiers yi dafa mel ni policiers yi temps yi challenge la quoi. ñu ngi def lu mais xam nga comme defee lu baax ñu mhm. di dimbali policier bi jàppale kii waaw benn benn benn taximan léegi di jàppale benn xam nga donc euh, c'est une bonne action euh, ñu daal di leen euh, nuyuwaale de passage di leen di remercier si liggéey bi ñuy def policier yi mairie yi non <laughs> mais ñun dañuy wane lu baax li nga xamante ne mi ngi ci réseaux sociaux yi mhm. vidéo bi mu ngi ci réseaux sociaux yi et c'est mhm. une bonne action ah. daal di ko tegal rek li nga xamante ne di <laughs> internet yi ñu xam nekk que ne policiers yi tamit ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi jàpp ci affaire ci tali jeex na jeex na en tout cas clin d'œil euh, aux hommes de tenue. ñu mhm. leen di encouragé ñoom tamit ñoom ñiy jàpp ci ñu ngi ci tali bi ñu ngi fépp rek di assurer suñu sécurité. Mhm. te loolu nekk na lu am solo euh, signature. nekkul woon loolu posé problème yow damaa bëggoon nga signer ma dama bëgg a xool sa signature nu mel parce que dama dégg ne dafa am différence entre signature milliardaire signature millionnaire. gis nga vidéo boobu yow. <laughs> xoolal na nga de sama signature yi ngi noonu la. man man it sama basa ngi noonu mais yow ma foogoon ne deuxième bi man de gis nga a pare sax. te matulawul sax. man de noonu laay signé danaa ko bëla bëla bëla bëla ndeysaan man xaw ma woon nag am kii man damay signé signé ba mu ñu leen jaaraat ci damay am problème. xaw ne dafa am différenciation entre signature milliardaire millionnaire ak. joxu la borom 10 000. oui man de borom 10 000 yi gis nga nii di moo ma tane sax <laughs> ki dafa teel a pare. dafa teel a pare bu bleu bi dina saf sap. kon euh, yéen internet yi yéen tamit euh, lancé nañ leen boobu challenge bëgg nañ xam yéen naka ngeen di signé su ko defee ñu daal di euh, classifier xam yéen ndax signature milliardaire ngeen yor futur milliardaire futur millionaire wala juste borom 10 mille rek. moro ñun rek. ngeen daal di ko def rek. ci commentaire ñu daal di ko jël. <laughs> <laughs> ñi seen loxo jotul seen ginnaaw kat am mais euh, ñi ngi gis actualité comme wax nañ ko utile ak agréable la <laughs> dañuy mm. boole li xew ci internet bi site d'information yi ni ñu xëyee Euh, réseaux sociaux yi li ñu xewee gis nañ ak euh, actualité bi tey jii léegi rek dañu yeewoo ak euh, abindour ak fi mu mujjee ak cawam lekk yi fi Atepa yeeg site d'information yëpp ngi ci ñëw ni waaw ñëwoon nañ ko ci cas du ñu daal di rek def li nga xamante ne moo di suivi de cas toppal leen li nga xamante ne moo di kaaw abindour ak Pierre Goudiaby Atepa mhm. donc ñu ñuy yëgal que ne Pierre ate Atepa ak ñi nga xamante ne ñooy sculpteurs yi maanaam ñi nga fan ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon foofu di def li nga xamante ne mooy yëkkati en tout cas pierre yi mm-hmm. ñoom daal dinañ perdre li nga di yatt mooy ñi daal dinañ li nga xamante ne moo di bataille judiciaire bi face a Abindour ndaxte euh, euh, juge bi dafa daal di euh, daal di refuser tey lundi daal di jox la victoire à Abindour donc problème bi mooy que ne woon dañu bëggoon que ne chanteuse bi daal di jóge foofu nga xamante ne moo di site bi mm-hmm. pour mooy site bi nekk ci corniche bi dañu bëggoon ñoom ñu jóge mu jóge fa mm-hmm. mais juge bi dafa daal di trancher en faveur de ki nga xamante ne moo di Abindour donc finalement euh, du fa daal di jóge foofu lay daal di toog Mamadou. voilà loolu mooy euh, coowal Aby Ndour ak euh, Atepa moom gis nañu site d'information yi ñëw nañ ci di bëggee waale wala di remercier waale suñu site d'information en ligne yi Seneweb Africa. IGFM ak yeneen mhm. site d'information yi nga xam ñu ngi fii Sénégo Sénégal 7. site d'information yi nga xam ni dara du leen rëcc ci ay information en temps réel fii ci senegal muy information yi ñuy soxal ak yi ñu soxal sànq maa ngi doon wax vidéo challenge bi. Mhm. ay ca kon ñu seetaan ko te ñëwaat continuer actualité yi munul na bàyyi ku mun na def si tu nous testes tu finis dead ku munul na yem ku mun na def il pensait pas que je pouvais le faire. seen koñ ngeen def ko challenge hashtag bi sunu net la boo leen ko envoyé ñu partagé ndoo ko ak téléspectateurs yi mais ñu partagé ndoo ko ak yéen di wane ni ci période yi ñu nekk nii ñi ngi wane taataa ndox vidéo yooyu mais tamit bonne action yi ci la bokk te day day jàll ci réseaux sociaux yi nekk na lu am solo sànq ñu ngi doon wax Aby Ndour ñu jàll ci gis naa léegi ci statut yi ñëpp di partagé génn àddina député bi di Adama Sow. waaw euh, génn àddina euh, député. député Adama Sow donc Adama Sow moom mi ngi daal di euh, faatu li nga xamante ne mu di euh, guddi dimanche 30 euh, maanaam démb jëm tey lundi 31 août. fële mhm. ca Kadar ci village nataalam boo xamante ne ci département ngeen la nekk. Mhm. donc ñu ñuy xamal nekk ne dafa daal di am malaise looloo tax mu daal di faatu. ñu koy ñu ñuy jaale famille bu baax. voilà ñu koy jaale famille am di ko jaale waa Sénégal gi yëpp yàlla xaare ko àjjana leneen li mooy li ñuy jeexalee li lëmbee àddina actuellement. malheureusement depuis ci week-end bi génn àddina ki fi nekkoon euh, acteur principal bu Black Panther film boobu nga xam ni génn ci atum 2018 te day wane fierté Afrique mel ni ñu ci bari doon ko partagé ci réseaux sociaux yi. waaw euh, dañuy daal yeewu samedi ak tiis ndax euh, moom la ñu gis nekk ne nit ñi ñu ngi ko daal di di tàggee kii di Chadwick Boseman donc si compte officiel am la def annonce bi il est décédé nag des suites d'un cancer du côlon de type 3. yi ak Black Panther dafa daal di amoon li nga xamante moo di cancer. demoon na sax ba ci fan yële passé il était dafa génnoon mu daal di sew rucc. ba nit ñi di ko tooñ nekkete yow feebar bi la euh, ñu daal di euh, gis euh, ñu bàyyi leen rek ak benn vidéo boo xamante ne nii voilà bu triste la moom mooy peut-être dernière apparition am yi la mu doon jooy avant vidéo bi leneen li nga xam ne mën nañu ko ci dolli mhm. intéressé internet bi mooy tweet bi nga xamante moo ko doon annoncé bi mhm. a gën partagé ci histoire réseau social bi di Twitter gis nga ko. plus de 7 millions de personnes ñoo ko ñoo ko euh, mu nekk ay loo xamante euh, record la ci euh, réseau social bi. effectivement c'est un record dans le réseau social qui Twitter parce que benn tweet depuis bi Twitter créé ba ñu ko créé ba léegi. Mhm. amul benn tweet boo xamante def nañ ko. Mhm. autant de partage ak autant de like donc mun daal di nekk record historique ci li nga xamante ne moo di réseau social boobu te loolu c'est Chadik Bosman euh, malheureusement nag fekk voilà ci amin boobu la ko amee fekk daal dina gaañu mais li nga xamante ne moo tax nit ñi di ko gën a partagé mooy nit ñi dañuy saluer bravoure am ndax dafa feebaroon waaye taxul mi ngi doon continuer euh, di tourner li nga xamante ne moo di filmam te kenn musul yëg dara il a ko que mu gaañu pour ñu daal di yëg voilà amoon na feebar boobu di cancer ñuy xalaat ñëpp ñu feebar Mhm. actuellement courage à tout le ñi génn àdduna yàlla xare leen àjjana ci kaw loolu sax d'ailleurs lañ leen di tàggoo jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi wala li ci net bi comme ni ngeen ko waxee yéen internet yi gis nañ réaction yi page Facebook bi gis nañ commentaire yeeg euh, intérêt bi ngeen jox émission bi du ñu jóg ci di ko wax di leen jaajafal hashtag bi bu lañ ko fàtte sunu net la mérite di tàggatoo ba suba ba suba incha allah Mamadou Ndiaye ba suba euh, suñu chers internautes ak téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox dig daje demain incha allah 13 toujours la même heure et la bonne heure à demain. yi dina ñëw maire yi ñu ngi laajte vidéo yi neex yeeg reetaanlu yi ñu ngi ñëw incha allah semaine bi ñu gën ko togg gën leen wan yenn vidéo yi nga xamante ne dina leen reetaanlu bu baax en tout temps ñu leen jox dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi wala li ci net bi.